maanaam dañu ma nafsu li muy jàngat mooy suñu jikko yii nu mel xam-xam dafa am njëriñ nii ñu mel lan moo ko sos ay ma nafsi ay ma itimaat ñaari xam-xam la yoo xam ne dañoo ànd ay ma nafsi jëmm ji waa ji personnalité bi lay jàngat ay ma itimaat di jàngat nekkin bi ngay taseeg nit nit ji gox bi nga dëkk caax la kaw la lan lay jeexeetal ci yow ñaari xam-xam la yoo xam ne ñoom ñëpp dañuy dimbale kon ay ma nafsi kon buñ duggee ba ci biir danañ xam jeexee yi nga xam ne misaal tey biir ak dara ko jeexee ba ci ko ëmb sax boom doom ji li lay ji di defakal li muy gis ak li muy wax li muy dégg loola day jeexital ci ci moom ko ko kon yow da wàcc na ko kon yow yow mi nga xam ne yaa ngi gis ci biti bi kon yow yaa ngi yaa ngi te assor tu assiru rubama wala kenn te assar moom pour la xam kon léegi ibnu sukam mu ne kon an insaana fii bii atin yaa ngi sukki bii am bii am mooy dig digal li li la wër li li la wër mënoo cee mucc ñu wax nag ku mucc ci li ko wër mina naasi wala asiya nit ñi dañ day jeexital yow asiya yi garab ga bant ba mosu fu salte bi fu set bi fu taq bi fu rafet bi fu ñaaw bi day jeexital ci yow ci lu nga di ko yëg te maanaam si kon li la wër problème la te li ci ëpp doo ci man lu bari waaw wa yasaa fiihaa wa yakiddu day dox di di liggéey yasaa liggéey wa yakiddu sonn li dafari bi taamihi wa ma'waa ngir bëgg am lu mu lekk ak fu mu dëkk wala irdaay xaayatihi al maddiya wal wal maanawi ngir li mu bëgg ci li mu yëg soxla woo ko ci yaram wi ak ci róogi mu man ko am waxoo fi sax yi da nga gis waa ji nekk ci ab dayra dayra yi dara warul ko lu may ruugee mar ne ci dayra bi dama xasida day daal ah yaa ah xanaa baax na xanaa baax na lay wax xanaa baax na wóorul ko sax di waaye daa ne baax na loolu da koy wétti lii ruugee dafa mar faaw mu am lu ko nandal dayra yi loolu fi loolu dong la ci nit ñi duggee xamuñ sax lu leen ci yóbbu waaye dañoo mar mu ne kon waxoo fi sax yi hada yàlla xam ma waa de waa xabaat li nga bëgg nag waa ji ci dayre bi ay at te gisuñ benn ndolleen ci moom ci ruwam kooku problème la kii liggéey ba sonn te mun a tedd kooku problème la yooyu ay ay mawaane mooy obstacle ay gàllankoor ak xabaat non non non ay ay ay gàllankoor mu ne kon wa masakil ma di yee wa itimaa yee itimaa yee bi dangaa dangaa juddu doon ab sëriñ wala donga forcément société bi ne la sëriñ nga sëriñ nga de sëy dafa daan lekk caafam nguru ci ci mbedd mi ak a neex waaye ab sëriñ mënu ko ne ab sëriñ bi société bi dañ laa forcé yow ab donga nga mënoo doon ab sëriñ société bi nee na mënoo doon sëriñ loolu sax amut moom waaye société bi tëbee ko wax jéggi leen sëñ tubaab bi bi tàggatanaay yi doon sëriñ Sénégal sëñ tubaab yi xëy génn jëf kooku kooku audace la kooku dafa dafa am yitte am ful loolu kon wa yajidu nafsahu mu'taran e tawfiqi bayna matalibihi wa imkanatil bi'a li nga am mën a am da nga fekk sa bàyyi yor dara sa dëkkandoo bi bàyyam yor dara li muy bëgg ak li muy wax ak li muy sol boo ko bëggee sol da nga da nga sonn da ngay jéem a te àqalum ak sa bàyyi li mu am sa bàyyi ceeb kecax lay togg tey bu ëllëgee mu togg leneen da ngay muñ neexlu ko jàpp ne ceeb kecax kat moom moo neex jën yi ceeb kecax jën la kecax jën la waaw moo ci jën la waaw ki togg jën nga ko dara man may bàyyi lekk jën kecax jën la mu jeex daal di noppalu xanaa dit waaye góor gi ah man fan yi daxaa moom dañoo togg jën de mooy la demal jëndi ko jëndi ko bu dee ko bëgg jëndi ko man li ma am la indi loolu da ngay sonn rek da ngay fexe ba li nga am sa sa bàyyi tabaski gi xottil na xori ga tabaski wul la xottil da ngay muñ xam ne sa bàyyi lim man def na ko xottil na ci xori ga xori tabaski dañoo jege kon kon kon doo am problème waaye nag yow sa bàyyi xottil lu la ci tabaski rek nga yow nga mer koy mere sa bàyyi lim mën a def kon léegi nga fexe ba التوفيق بين متاليبك وامكانياتك فيها li nga bëgg ak li mën a am wala tax diri suluki nit ñi soxla woo soppi ko da ngaa da ngaa nekk ci kër goo xam ne dañuy saaga dañuy sol lu bon nga génn dem ci kër goo xam ne dañuy sol lu baax du duñ saaga soo ñu ñu may saaga ñu ne eh koo loolu ci la sa duus ñu ne ah gat ngee de foo ëllëgee doo saaga da ngay daal di jëm a tax diir soppi sa orienté sa sa doxalin loolu da nga xam ne kat li nga wax jéggi la gars yi jinni ñoom kon léegi xataa italaa ama maa maa yaaridu lahu min turub wax daal léegi xew lu nekk nga mën a dëppoo moom loolu faaw nga faaw nga def ko soo bëggee dund société société mbooloo yi teew kenn wax ma waa kër gi di ja société bi li li ciy bees ci ay. waaw la ab gëstukat la day jàng tubaab waaye arab lay jàngal boobu di di ko jàng ba jàmbaar waaye nag sëriñ Cheikh Moustapha la ndeyam sama tool bi maanaam day yëg ne moom ab sëriñ la di ñëw sànq société bi da ko da ko di ab sëriñ moom mu dem jàngi tubaab léegi tubaab bi ëmmalu ko ko jëriñ daa bëgg a dil si waat doonaan ab sëriñ jàmba waaye ku ku am yitte la loolu moom tax tax jiw si loolu ñëw sànq mën na nekk waaye day aji nag nga am yitte kon mu ne kon daal ga tax jiw si loolu yëpp comme comme moom ñi français la jàng léegi arab dem na sax bay traduit fort góorgóorlu ci ci arab wa dalika an tariqi ak tafkir wala taqdir position moo xam ba situation boo nekk sa baay kat amut nga nangoo jëm wuti yow amal ko sa baay amut waaye war ngaa mën a am tax xaar noo koy am nooy fexe ba am tax diir noon nooy noon nooy xelale nooy tege say sa say plan ba mën a am dara sa baay bay na ba sonn mun nga am ndax daaw sama bàyyi lu tax amul ñu ne daa ne daa bàyyi dafa doon de waaye nawet yi neexutul mais nga ne ko kon de man su ma noppee kon man damay doon ab commerçant ba xam daal fëgg guddi boobu am dafa guddi guddi boobu bu baax kon léegi yow wuloo fekk sa bàyyi la mu nekkoon rek te te loola duxut nga toppaat ci sa bàyyi la muy liggéeyee bu dee duxut da ngaa war a seet benn mucc sax daal dëkkaay yi sag yow yow ji nga xam ne jamono kat am na lu mu laaj loo xam ne su may xamu góor nga jéem koo dox yow aw tax lu mu turux njëriñ la li li li sulóog wala nga jéem a orienté wu ci melokaan sangam sa baay day saaga day sol te day def dënnum neen jox ci mbedd yi pour moom du dara dafa tàng nga gis ne que sama baay daal am na ngeen góor boo xam ne daal mu nga jógee fële Saalum ñëw fi fan yi ni mel jëkk na lu tàng-tàng daal day sol lu yi waaye sama baay te te moom mel nii léegi yow kon yow royut wa léegi sa baay da ngay roy kat tax jur suluk am solo la li mu naf waaw mu ne kon yastainu biha ala ma yalqaw min muskila maanaam yow utiliser sa xaar sa xel ci gars yi dañuy wax ne américain yi dañuy wax ne al isma kenn du jàngal kenn du jàngal léegi almudara mu ñuy idaara fu ësëma la tudde bu leen jàngal problème sàngam bu xewee nooy def déedéet dañ naan la dañ lay jàngal ësma bu amee nooy def mut laqan problème bu amee mut laqan problème rek problème boobu rek yaa xam lu mu doon waaye problème si boobu bu amee noo koy lijjante léegi ñoom kon du la jàngal solution dañ la jàngal nooy créer solution alxal bi yadika mooy Obama yu ka yu kaan du it man mën nga ko xam nga xam nga xam nga da ne mu mën a woo mën nga ko da nga koo jéem a guddi loolu lu am solo la am yow gis na sa sa sa sa bàyyi day du du am millionnaire loolu tax mu nekk mu doon millionnaire nga ne man dinaa jéem a doon millionnaire Sëñ Tuubaa bàyyam dongam naari lool Sëñ Tuubaa dëkk doon sëriñu naar yi nekk itti doomu la naar bi fu mu fu mu jaar ba ba ba doon sama sëriñ ñu bàyyi naa fa jaar ba doon sëriñu doom ah di la dara dara kon mu ne kon kamaa yajid nafsahu mutaran lima tafidu alayhi albiya jigéenu sénégalaise bawal bawal daa war a yiw tubaab bi dafa yiw a dig pour noonu tubaab bi noonu dañoo dañoo kaw kawe gene gene kenn kenn ku nekk gis nga ni ñu ko defoon tubaab bi dana yow yow africain bi sénégalais bi bor da ngaa kaw kawe man ko est-ce que yow da ngaa yiw a dig man samay xiyam ak samay muusur moo ko tàggee ci yow da ngaa yiw a dig say cër di feeñ wala yadribna bi xumurihinna ala jurubihinna sa dënn wut dafay jigéen dënn bi wut dafay ci kudul koo xam ne jëkkëram la wala baayam la wala magam wala rakam wala nijaayam ñoom ñi nga xam ne ñoom mënuñu ko takk rek ak jëkkëram képp ñoo ko mën a gis lu tax gànjar la gànjar yàlla da koo fonk ba ne ko làqal ma ko illaa bi boole tey na xaw am nay bool nangam lu dul nii daa bëgg jigéen bu bu léppam dee feeñ bu yàggee marchandise am day daal di lam bëggoon bakkan lim soxla mooy lu mu xamut lu mu xam sànni ko kon yow jigéen ji muurul malaj ba góor gi bëgg laa découvrir bu la xasee découvrir nag nag nag na ci ci yow léegi jigéen ju taaru lool ñuy fekk ci ci koñ bi ba noppi jëkkëram di doxaare ca geneen jigéen ju ñaaw xam nga lu ko war a la daa noppi ci kii ma tax sëñ ne ne bokk na ci acteur bi jin si boo dee góor a jigéen bu nekkee ci néegub sëy buñ taal ab làmp xam nga lu ko waral ceebu naf mën ngaa découvrir ci ci sama morom ayib nga daal di koy seexlu nga daal di koy bañ ab liggéey sàngam nekk barab sàngam koo xamante ne boo ko gisee duutu la neex bind ba soppi ko sëñ bi ne kon bul tax lam bu ko bu kenn xool moromam ba mu jeex kon da ngay suuf bakkan li mu bëgg mooy lu mu xamul su ko xamee nag bi xoolal boobu technique technique la di technique la daa bëgg daa bëgg xel mi ne xamagut lépp waxtu bu nekk du xam lépp saa su ko xamee nopp ci de jigéen ju la gën a yiw moom la góor ñi gën a sopp ko jigéen ju yiw di dugg moom boo ko gisoon benn yoon noppi nga jàpp ndax jeex na di jeex na bët yi suur na moom maanaam bët yi gis na lépp di bët yi moom li mu soxla mooy li mu gis gudd waaye li nopp na kii moom noppi na kooku moom sëñ bi kooku lu am solo la kon biir ijtimaay bi waxaasatan ay al ijtimaaya min min quudin wal wal sama da ngaa war a ñëw ñëw jigéen ñi bool bool da ngaa war a ñëw kooku moom force la salum salum da ngaa war a ñëw ñàmbur ñàmbur nag yu daal yéen kaw kaw yi ngeen war a ñëw te dëkk ci taaxee moom daa war a ñëw di kooku ab la nee na kooku loolu yiw di moo xam waaye yow mi nga xam ne yow ab sëriñ yow nit ku yiw nga yow danga war a yiw waaye gis nga man am na loo ragal loo lu mu tàng-tàng nga sol mbubb mu yiw lu mu tàng-tàng nga sol mbubb mu yiw wàcce loxo bi soxna lu mu tàng-tàng nga sol mbubb mu yiw bu dee dafa tàng annaaru ashaddu harra sawaraa gën a tàng yàlla du la digal lu mun te nekk alaa yaalamu man xalaqa mu def xabir yàlla mi bind si si jëmm ji xam na lu ma tam du la teg lu ma turul la solal mbubb mu jot nga ne ko dafa dafa tàng déedéet xanaa xanaa ko ni yàlla taxuno xam na ko de fi ñu toll nii borom xam-xam yi ne ñu boo solee ñaari mbubb ci waxtu tàngoor bu bu su su nelawee duggee ci ñaari yére yi diggante ñaari yére yi day mel ne kilim kilim la boo solee benn mbubb nag day ngelaw leen tàngoor bi dalay laal soo yoree ñaari mbubb diggante ñi ñaari ñaari mbubb yi ngelaw lu jaar fi day day soppi ko ab kilim kon loo gën a sol gën a féex loo gën a summi ko gën a tàng bu tàngee loolu bu naan glace jëlal kafe gu tàng jër wala meew bu tàng jër naan ko dali féex da da da da da nga koy da ngay safaanoo moom ni mu mel nga di ko tàng soo koy tàng rek dali féex waaye gaz bi loo naan gaz loo naan gën a mag loolu xam-xam la. su su su fenk yi dañ daa sol mbuum leen suuf mu mu des kenn ñu ne mbuum yi mën nga ko sol sedd moom mu tàng na bu bu dee tàngoor day sedd mbuumu diis boo ko solee jiital ñaari mbubb day fiix bu dee bu dee tàngoor day fiix bu dee sedd day tàng kon yàlla mel la solul xam na ne boo boo soloo doo tàng se se seytaane kay moo lay wax ne la da dafa tàng bul solo seetlal tubaab tubaab bu góor bu tàngee bu seddee lépp day costume ko tax dafa yiw moom forcément dafa dafa yiw dafa war a costume costume bi noonu mooy bloc wala dara dafa war a sol jiitlu bandi bi nag mooy sol moom ab simis bu woyof wala tellement wala rek yaram leen kooku bandi la ba demee ba Europe Europe Europe ñu ñàkk solo ñan ñoo koy def dem naa France Allemagne Espagne Italie ñu ñàkk solo ña ba ndi ñooy sol col gu bon gi ñu du ñëw ñi dañ costume bu dee ko ndaw comme Moussa mii dañ costume yorop saagam di dox dox bu yittiw nga xam ne kii nit la waaye du sol ab suñu ndaw de déedéet loolu loolu lu am solo la nga xamante ne yow bii ak bi da da ngaa war a yiw loolu am na solo lool kon yaraa na soo fii kese li may wax yàlla muru xaman ala ay yasbira way tax xamal al ala gone nga ne ci kër gi ñu ñu lay bale lookal ngir ñu nga nangam gone nga yooyu war yunde ba ko xew ah yooyu war yunde sanda yi xanaa du génn xanaa dañ ci dañ ci dig mën a xaraat wax xamal ne loolu da nga ko war a muñ bu ci kanam tuutee nga am yooyu nit adduwaar yi dañ koy wëccee kon aw yajëw ila saliba waxel mahmul mul tawiya léegi nit nag situation yi mu nekk jéemu caa génn waaye dafa bëgg a tappale ay asalib xeer mul tawiya ay pexe yoo xam ne yu yu gën ko si la au lieu que mu dox nii daan nii mooy daal di naxe mu ne li laaj yi ne yëpp daal xaajat yi li muy soxla woo mu bëgg koo am sa dëkkandoo bi bàyyam dafay di jëndal jesneer sa bàyyi bi jënd perkaal nga ne da nga ne mën naa bëgg jesneer même boo solee jesneer waa ji bu àndee ak moom mu ne oh yow sa sa jesneer day feneen waaye su nga ñëw ba ci ba ci koñ bi da ngay dugg ci sa néegum ñax ba yow mu dugg ci iran léegi lu ma jëriñ dara lu ma jëriñ yow moom solo gestionnaire yaa xam waaye ñu ne sakkat nga ko mënoo war a jël gestionnaire bi jëndee ko ab ab saako ciment mënul moo gën a war a jënd ay ay loolu loolu loolu farce la farce la léegi nag nekk ci sa néew ñax bi di xaar ba xam nooy fexee ba tabax kër gi loolu loolu loolu loolu moom moo am moo am njëriñ waaye trop mu taw yéen naxaate noonu naxaate ba gis naa ñoo xam ne fii sama benn mbokk moo xam ne day dégg de oto bu rëy la yor day dégg de dafa laa luyee ñu ne ma trente mille la koy luyee par jour oto bu rëy aw ci télé bi di nangam nangam léegi de moomu ko mujj gi da caa am bor yu bari trente mille par jour sëñ bi loolu koo jar man dinaa la yow sa oto bi rafet na te te yow moomoo ko maanaam bu lay waaj a takk takk taxawale ba xam ne moomoo ko ah loolu la jëriñ loolu ay falsi la dégg naa fi bu ne am na ñoo xam ne buñ dee labati daw soo xam ne seen yaay daa bëgg xaalis dañuy dañuy dem luy ci bëtu bu rëy da da demaat ci dina am mbokk moo xamante ne la tax ñu may ko soxna loola la daa am koo bëgg ñooñu dàq ko kooka wut ab waayam ñu dem luye ji ab Mercedes bu rëy ne ko de waaj yu dërëmam maa ngi dem jërëjëf yu dara parce que bu rëy la lay luye di di dikk kay kay may ko ndaw sax ba mu amee doom ndekete yu si rab ñu ngi des ko fekk de ok
loolu false la false la kooku moom turux mu tawiyee loolu loolu moom juru ko de nga doo tax ñu jëfi kii de wa batali bi ubeykoon fii fii dalika moo aratan li ne daal was suxt ni ngay bëggee ca ñu romb la ak sa oto bu rëy bi ni nga def da koo luyee saa bu la dee fayu da nga am kersa da nga dul ab sañ sañ ñu moo koy fekk trente mille par jour te liggéeyoo dara kooku koy fekk ah man xamu ko wala xatab wala xaw da nga da nga mer da nga ragal da nga sopp da nga da nga kuruhu iqdaam ihjaam dem de par ihjaam mooy mooy dëpp na jaam léeg-léeg mu baax ixfaax léeg-léeg mu yàqu échec wa huwa fii tafaaluhi haada noonu ngay doxee ak waaxina bi tabian bi wala bii a bi ah kita astaru da loolu nag da jeexital ci yow nga yow sol see gis neer so yow yor sa pasero boo luyee te sa kër di néegam ñax loolu day mujj dootoo mën a dëkk ci kër ga soo amee gan nga nga nga seen daa bëgg ñu ñëw seen kër doo ko def ci loolu kooka daa mujj di luye kër luye appartement dafa ëpp crime ndax nit ñi mën nga ko fekk foofa loolu si bu coono la di ah si bi coo- coo- coono la bu ko jar kon waaye yan fànn yi chokal ifial maanaam léeg-léeg nga nga bëgg ci kanam nit ñi soo wéetee tiit mer ndax yaa yaa ngi xool 30 minutes tey moom gaaw na tey tant bi la la war a bëgg waaye ndax ba maanaam léeg-léeg rek jant sunu moom jant moom day am soo moom du la du la xaar de tey soo moom 30 minutes daal di wàcc nag ñu ne ah 30 30 minutes suba dikkaat 30 minutes ñu waay ah loolu loolu yaa ngi dana métti ci yow di. mu ne kon wa wa wa yarxabu wa yufakkir wutaal jeex ma ko bëri.
ah des na des na.
wax wa yarxabu wa yufakkir nit ki bu nekk ci biir bi yarxab xel même dara loo mënta am problème la xel même loo mënta am tey benn waaye ne man kat daa bëggoon sama bàyyi doon nañu ndax du ko doon noonu léegi lu lay fexe rek ah
luy fexe yow yaa ngi ci tudd góor Ndiaye sa bàyyi tudd Massamba Ndiaye nga ne daa bëgg na suñu taxaw lu xel bi sesla di murid loolu moom sëñ bi yàq taala moom jamono ji yàq taala de
yaa ko daara gi. waaw ah bu ñu waxee bu ñu waxee daal leneen doon sax am milliardaire waaye bëgg doon suñu taxaw loolu yàgg a neex na dafa naan oh tax doo suñu taxaw doo suñu taxaw moom ñu doon non bàyyi doon Massamba Ndiaye loolu moom da ngay yàq sax rek yàq comme ni waaye quand même da ngay jéem a def dara waaw xëy na moo amul njëriñ xëy na bu yàggee da ngay soxor ndax boo xamee ba mënoo am lay xamee da ngay soxor rek ka ko am waaw te ka ko am tooñu la tooñu la nii tooñu la dafa wuti soo bëggee bu dee luñ mën a am la waaw xam nga yow soo nga bàyyi ko dugg góor ñaay man nag nga bëgg a doon suñu daaw boo ko xam ne moom mu yor moo xaal incha allah wayu sam miim ngay def tanaa tas miim tanaa yaa bëgg nu ma koy amee am na sëriñ si si am sa dugub moom maam Thierno dane si am sa dara wax naan gone yi waaye maanaam wut xaalis mën nga ko tàmbalee boo dee gone nga ci ci ci yar ay ay ginaar mu ne da ngay wut nag kaaf mu ne kaaf gi nag bu ngi sonn da ngay wut ab bërigo dagg ko ci digg bi bërigo boo ko daggee boo ko daggee ñetti ñetti xaaj da nga am ñetti kaaf. dégg nga de bërigo bërigo yii boo ko boo ko daggee ñe- ñetti xaaj am nga ñetti jàpp nga nga daal di teg wut ginaar bu góor bu jigéen ak bu nee na léegi nga daal di am ginaar yu bari soo soxlaa man jaa faj faj sa soxla li gën a neex mooy ngay faj sa soxla te te doo wax kenn ne ko maa ngi maa ngi maa ngi daa bëgg a def def diwa la fi wuti daa bëgg a jënd suukar ah yow nga ko wax nga ne ko di yéen eh waay mais fi nag. man ah man da da da nga naan itte sax xaaral ba ba ci kanam ak a neexoon nag nga nga nga génn foo jëm fii la jëm fii rek dem indi suukar ah suukar nga ne waaw suukar waaw suukar la am ah ma ne mi mi fi de waaye sa sa sa suukar sii boo ci nee suukar ataaya ji kenn suñu militaire ne ëpp na am yées na ak a neex gën a yàq gën a yàq wallaahi moo moo tax maam Thierno ne as góor day góor ci dara munoo am xurriya man laa yamliku xuuta yawmihi kooku nay sa bi xorom bala ngaa añ da ngaa kalayu na ba so- ba sonn ñu ne la añ bi ah sa yow sëñ bi añ añ bi moom sax ndax jeexu doon ma ne day kalayu na jigéen ñi ñuy ñàkk solo nag xam ne xam ne kii kat maanaam day xaaral dañ la dañ la dañ la koy wax de ñoom añ bi dëbbeeku rek te yaa dafa ci kanam ak dañ la nga xaaral de jigéen ñi xam nga jigéen ñi jigéen ñi fi doon seen xel yi ni mu ñawee dañ koo liggéeyu rek ab xaankat ni ñu ko xamee. bu la jaayee ñëw rek toog na yow yow baal. ah sëñ bi sëñ bi laa génn waaw. ah yow yow yow gis ngaa gis sa sa baay ah man man kat da da da dawul bëgg. dañoo bëgg dañoo demal maanaam yow bëgg dem ni ñëw yow kay la la la la wut. waaye waaye bi moom dana wax gis naa ne moom gis naa ne ñoom keroog ah day war a keroog. lépp daa bëgg saa bi kii rek ba waa ji nuyoo. oh la ilaha illallah jigéen ñi dañoo ñëw léegi nag loolu yow wër di xaaral maa ngi sëñ si la ne nekk nañ ci yàlla suñ suñ bul suñuy tarde maanaam itiyaay yi itiyaay yëpp di xaaral yi ci kër diplomate man sëñ si la ñu ñuy jël mburu di ko togg togg bu laax mburu dañuy wax ay mburu mu xorom la mu xorom moom maa ngi sëñ si la mburu yooyu dañuy jël di ko xooj di ko aji maa ngi moom kër yëpp bay dem buy dikkee nag di waxtaan bi waxtaan naan oh añ bi dañ ay nangam noonu noonu ay gor la ñoon noonu moom noonu noonu noonu gor a metti sunu laax bu boobu nga xam ne laaxu mburu mu xoromu ba boobu ñu lekk moom man moom amu suukar bi ñu amuñu jënd suukar amuñu dara waaye noonu loolu moo nekk ci noonu xoolal ñun ñëpp bay dem ba mu des maa moom kenn ku nekk day xool morom de si njëriñ la ñëw dem ngir man ñëw ma dem ngir moom ak a metti ak war a metti war a metti ak war a su góor ci dara day xaroon maanaam booba noonu booba booba noonu xalaatuñu dem fenn noonu dem fenn xaruñu noonu déedéet toog rek di xar yàlla ak loolu ak ak war a metti ab jaam nag moom yomb na am dorob jaam yomb na am maanaam foo gis foo romb sax xet nga xet xañ la ak gox ko xanaa da dafa doog ganaar yéen a dugg salaamaaleykum am na am na ñu koy def day def njaay yi njaay doy njaay njaay njaay njaay la mu ne kon woy sami duy woy woy sami duy de obama noonu mu def lu yéeme la ne ci biir pale bi ne say doom dem leen liggéey yi pale bi doomu sax de oh man boobu dars damaa yéem damaa yéem Obama jàngale tubaab yëpp benn président bu ma sa yebal doomam ne ko dama liggéey te ne day def ci biir pale bi oh kooku kii bu la tey si si si si si sama ndax mi ngi jëloon benn doomam eh dama liggéey yow dama ci àll ba ah xalaat ko sa sa sa sa xaw ma ji de. fët jaar na buntu kër bu ne jóg wax ko ci rajo bi télé bi ñuy di gis loolu ni muy amee njëriñ loolu gis nga loolu day may espoir amal nit ñi ay bunt dara sa la boo xam ne mu asir ji dël lay doon Obama ba mu ko defee dañ koo génn télé soo daan télévision ñëpp télévision yëpp yëg ko xale bi di di dem di raxas ay palaat ñu koy fay ay sant te bàyyam ma ngi ci pale bi Obama Obama moom Obama moom di yàlla rek rajul la rajul azim jiddan parce que ko ko góor la moom boobu xanaa dafa dafa kawee fi toll loolu tubaab yi bu doon nit ku weexal danañ ko yëg loolu tubaab bi dañu soxla jëf ji daa kawee daa kawee kon it kon nag yow sa baay amut forme doo jéem a liggéey nga dimbali ko ñu am leen sa xam nga si yow yéen ñii seen bàyyi den fayal loolu nga xawutal moom loolu xam amul déedéet amul benn technique sa portable bi jaay ko def ko def microfinance bu ndaw lépp liggéey ñu dara demal jàng nga nu ñuy defaree portable ah liggéey ci xaalis sëñ bi su sa bàyyi nga wàcce ko ci noppal ko ci fay gi boo doxee tuuti ni ko baykat léegi suukar ak café gi man maa koy jënd dox tuuti sa baykat léegi ceeb bi man maa koy jënd noonu noppal sa sa sa bàyyi sa bàyyi am ci yaakaar waaye bay indi rek indi kon wayu sa miim duyut wayu na pis bi nga plan fooy jaar ba man lii ma wax da nga koy appliquer da ngay exécuter xalaat def ko yéen jigéen ñi nga jël ñaw ay ay ay kii comme ay seer defar ko nangam am na rabb nangam am na kii am am na loolu maa def de yoo xam ne boo ko jaayee man cee fay soo weer man cee dimbale sa yaay sa yaay bu aayee mais jox ko na téeméer wala nangam loolu baax na téeméer jox ko bu leen bëgg xeeb lu mu fukk jox jox ko ñaar fukk mu yëpp di ko defal sa yaay day day kontaan xam ne doomam ji day am na jom waaye boo bëggee génn sax jëm ca marché bi sax fànn nga yaay may foofu ñu foofu ay waay sa yaay boot la sonn ci yow ba tey mënuñoo ko dara yow doo jéem mën dara kon kon yu sammim wa yu nafis mu ne wa yata'allam bi ngay bi ngay dox ci loolu yaa ngi jàng mi ci sangam élève ga bi ñu tuddee off time ci américain yi saa boo liggéeyee ba wàcc da ngay dem liggéey waat feneen américain yi xamuñu liggéey wàcc dem tëri dem tëri si sa kër di nekk ci benn waxtaan déedéet off time bis bi moom métier bi nga am mooy damay xëy huit heures tey ba deux heures koo kooku mooy sama bis su ma noppee nag ba dem ci restaurant bi añ du ma dem tëri de damay dem liggéeyi waat ngoon gi loolu mooy off time off time léeg-léeg moo gën a seer fi toll fi ngay liggéeyee man ma ne off time bi am na trois heures lay doon ba seen jëm da dañ lay fay lu seer ku mën a sonn nangoo sonn ñu fay la lu ëpp li li li li doon ci fay ci suba bi ndax loolu ku ñeme coono la yow def ko wàcc nga fii deux heures wala trois heures defar ba quatre heures nga def ab ab kuy. administré bu waaw wala misali ne ay defar na suñu man de dama jàng ci tugal ba dama bëggoon di ñëw fii di la jàppale ndax jàng mu ci mi yow jàngkat nga yow soo fa amee ñetti at jënti at ba ngay am bat da da nga xam dara ah da nga daal di am métier métier moom kenn du ko am di taxawalu saa boo sonnee dugg ca état bi état bi muudu muudu bu fa am problème muy muudu muudu bu am métier tubaab bi du laaj këyit li muy laaj mooy loo loo man ne nangam ñu boole ak ingénieur boo xam ne mën na loola nga nga nga nga def mu mu gis waa di bind moom ne ne mën na ko mu jeex tàkk métier kenn du ko am di son kon mi mi métier gën gën a wóor de jàng jàng nañu moo gën a wóor de kama annahu yu'abbiru an afkaarihi wa mashaa'irihi bil lafzi marra wa bi haraka ukhra benn xale booba jox ma si ko mel nekk yaakaar naa booba mu dama laaj ne waaw oustaz léegi léegi man noo mel ma ne ko yow da ngaa am ay humum nga am ay ahsan da ngaa am xusnu dafa yéen ci yow mu ne waaw man daal dama jékki-jékki rek da damay xo lu ma xam lu may def da damay dem dugg ci néew ba tëju jooy ba sonn dikkaat génn ma ne ko waaw noonu baax na loolu la ñu tuddee fat fada waaw. fad fada égyptien la yokk fad ci fada maanaam léegi loolu da ngay féex mu ne ma noo xamee noo xam ne damaa am poste ma ne ko bi ma la gi gisee damaa gis ngay def nii mu ne ko ngir nii mooy dafa am lu ne ci sa biir di wax ak yow nga bëgg ko dàq maanaam léegi da ngaa am da ngaa am damir xay bi damir bi wax ak yow ci biir naa nangam naa koy jiwee jiwee jiwee xanaa yow da da ngay wax da daa am koy waxal ci laa xam ne da ngaa am problème benn mbokkam mas naa koo wax benn keneen moo ko rakkam ma gis leen ñoom ñaar ñu wutee ma ma ne rakk ji yow yàgg kii dana sa rakkam da yàgg kii yéen a bokk lan mu ne ma bàyyi ma ne ko wax ma gis ne ndekete mu ne ko waaw moom ku yi ndeyam fan la ko sa sa sa bay takke mu ne ma xanaa da koo takke Dakar rek ma kay kii daa am problème ci kër gi daa dugg fu mu bëgg bi doom yi juddoo wuute doom yi am problème dëgg la ak wóori di boole ñaar ñu bokkul waaso ci génn kër gi bu doom yi juddoo am problème kii mu naf si loolu lay jàngale de waaye nag man nag li may wax nag moom nag nga nga dem ba mën ko nag moom ñu preuve nga ko nga dem ba mën ba mën a li may xamee nga nga xamee ko daa am leneen foofu naa lu ci jaxasu mu tax waaw ba ba yàlla may ma loolu ma mën a xam loo xam ne moom ilaxa daal waaye émission moom loolu la jàngale nooy xamee nooy xamee mbir mi yow sa bopp nga xam ko misaal damaa nekk ci Madina ndax mu ndax musuma ko wax wax wax sombi ba sombi ba ba mën a wax musuma ko wax ah wax naa ko bon xam nga loolu xam nga loola ni ni ni ma demee ba dindi ko xëy ma naf sa laa jàng léegi fas ko rek xonq dem ñoo complexe nga ci nga fecc ko ma ma xam ne kat léegi sombi bi sombi bi ma seexalu du du sombi bii sombi booba la wax naa ko ca niis ca tubaab ba ma ñëw di jënd bi tubaab bi daal di mer parce que ndaw ma ne man waaw man pour niis Marseille ma ne Marseille man maa ngi soog a ñëw maa ngi soog a ñëw ñëw ci aéroport bi kon tubaab bi xaw ma kon léegi moom daa am problème daa am ko man naa am ku niroog man ku am ku amal problème xool man am fan dem ca laa soxla ñu ubbi ko ma ne ko yow romb man daal dem ci keneen jënd bi mu jeex du du waxuloo xam na si moom xamal ne ma kii daa kii. ku mel na man la moo ko maanaam jëmm ji dafay fàttali dara da ngaa dëkk sa lay gi ndaw bu xëy problème am maanaam daal dépense bi de xam ne dañ amul lu lu mu yokkee dépense bi mu tàng jëru koy yoo koy nuyu ko gars yi mu ne xam loxo gisula gisula de ma nga ca tey téeméer dërëm ñu yokkee dépense bi mu koy waaye jaay waaye de de yow mi nga la mu ne ah nga nga nga ne ko kon jur boobu mooy dama gulóo lan la doom ah doom tax nga naa mën a doom fekk ne yow daa am problème li fanaanoo mooy dépense bi lu ko yokkee tey wu jëw bi am na lu yokkee dépense bi mu am ko tey problème la añ bi du neex kooku moom añ ba la yokkuloo ku la wutal yow boo ko xamee nag da da ko ñëw te maanaam da lay xamal nag ci nit ki li tax muy mer lan la. boo ko xamee ak tolérance loolu koy mayee nga xam ne kat kii moom ku xuloowut ak yow waaye dafa am leneen lu lu muy xuloo lu am solo la mu ne kon ginnaaw kon da dana mer wax waaye dana mer jëf kon léegi yow bàyyi la xel ne ku mer moomatul ko ak su jaaw man yamliku nafsuhu quwwatal qadam ñu bari ñoom bu ñu meree du du ñu mën a contrôler seen bopp. mu ne kon way way waayu anwaan uxraa muxtalifa min as-suluk waaye yi nga xam ne dafa ñàkk waaye amul lu bare bu amee ci ab ceeb day ciy def lu bare bare bare bare waaw bare bare ngir bëgg ñu ne kii daa am moom waaye nit ñi xam ne aw noonu ngir bare woo nangam yi daan ko di ñëw nangam nangam ceeb yi jënd jës neer insha allah nag bu ceeb gi jeexee nag muy leb ak li fay bor bu dul jeex lu koy jël ci bi yooyu jël ko jël ko de mu mu daal di wax ne كل هذه الأوجه المختلفة من النشاط العقلي والانفعالي والجسمي والحركي التي تبدو في تعامل الإنسان مع بيئته وتفاعله معها والذي تعكس تأثيره فيها وتأثره لها هي موضوع دراسة الإمراض. dégg nga de léegi nit ki xalaat yi jëngu beeg mer maag bëgg gaal bañ nga loolu xam ne léegi li nga amee ci ci ci ni muy ni muy amee contact ak waa xelam bi bii ak société bi loolu la ñu na seen jàngal mu ne fa ilmu nafs fa huwa yabhasu fi kulli ma yafalu al-insan lu muy def lu tax mu def ko wa yaqulu lu tax mu wax ko ay kullu ma yasduru anhu an insan min sulukin xarakiyin aw lafsiyin kal mashyi wal kalaami wal kitaaba wal wal xërëb lu waral loolu lu am solo la waa ji daa gis aw sagar daw ndekete jaan da koo mas a mat ba ñàkkaren day faatu bu séenee lu lu ñuróog jaan xelam day dem ca jaan mu daw fekk ne fekk ne loola la naan ay waay loolu lay doyow aw sagar kepp fekk ne da ngaa gumul onqda dafa am onqda naf sie boo xamante ne fekk fecc wuñ ko day am problème noonu nag fii psychologie amu fii nga ñu région ji yoon bépp benn psychologue moo fi ne trois mois yi benn yoon la fi ñëw dañ bis Sénégal a tardé ku tax yéen état bi mu leen a formé yéen ngeen doon ay ay psychologue fi tollu nii fi ko waati estomac bokk na ci léegi li koy joxe xalaat yu bari xalaat kër ga man nangam daa bëgg kër suñu kër ga néegum ñax fa nekk sama xarit bi ñëwee da- damay am kersa nga ne ci nooy fexe ba am tabax xaar yu bari yooyu indi lee suma sama bàyyi ceeb kay tax lay togg rek waaw sama xarit bi bu ñëwee man xamuma noonu nu may def loolu indi la estomac sama kat dëkkandoo bi dem na Italie man man tey sama bàyyi mu mun maa wutal ma fayal ma ma dem Italie ngay xaar ba ba am estomac médecin bu dof bi ne dikk nag moom lu mu doon estomac oh kat bi dikk loolu doon xamul dof dof la moom kooku maanaam nun bawal Sénégal nun suñu wéradi yi du du wéradi madd yi marab marab bi du du madd yi de marab bi psychologie la noonu dañoo ñooñu di dem ci mbë di mbëkk bi ci géej gi ñooña dañoo wéradi seen xel yi wéradi dañoo ñàkk amal espoir kooku boo ko bëggee yee wut may ko amal nga ko ah sëñ mu taxaw na génne téeméeri milliards ne léegi na nañ ko ubbi ab banque boo xam ne microfinance xale bu ñëw déposé ay kayitam ñu lebal ko xaalis kon kon kon kon ngaa yi toog waaye nangam nangam nangam yooyu moom kii mar moom yaayam bi mar yaayam bi xiif moom danaa ko danaa ko am ba ceeb ceeb moom lu baax la sëñ Tuubaa sax da daa da ko jëfandikoo bon bëggul loolu moom daa xiif ba ko ceeb bi daa ko non am si loolu ah maanaam kii moom li mu soxla mooy nga di ko am ceeb ne ko mi ngi nii bàyyi naa ko ci toile rek waaw bu ko nangoo bu ko bu ko fonkee nag moom dafa am loo xam ni lu waxee dara moom kii jàpp ko bay mbëkk bay mbëkk maanaam di dugg ci ndox mi moom kooku moom loo ko mën di wax lu may jox ko solution amul njëriñ ci moom moom moom xam na ne de waaw jot na def naa ci li nga bëgg a jot mu ne kon kon émana naf sa léegi moom lépp lay jàngal mu ne sax tamit àqal yi ni ngay xalaate lu lu tax patron bi dàq xalaat faqir bi yéen da ko xalaat de faqir bi faqir bi dana xalaat waaye faqir bi asia kaafiha lan lay xalaat maa fi ñu toll non loolu léegi mu mi man boobu moo xew ci kii bi doon damaa dem Dakar am at bu dee douze douze la xaw ma ci ak kër benn waay ku ma xamoon njëriñ mu naan mu naan waaw kii bi 31 décembre bi man gone yi nañu maa fi dàq ku ab ab ko si ma xool waay kër baayam gi kër gi mi ngi ñàng lool mu naan ko si gone yi nee ñu maa fi dàq ko si maa tutu moom man. alors loolu wax si kër baay bi ñaawul yàlla tere nga daan impossible yow yow possible rëwtul rëwtul bi possible bi boo ko boo génnee kër gi sol ko ku la si yéene kii mu génne kër gi xale yi duggaat rëwtul
Rëwtul de.
rëwtul Rëwtul.
costume boobu mu mu mu koor te dëkk ci étage ba kooku moom moom moo ko moom yow de yow de yow de da ngaa fal si yow loolu yàq temps la yàq temps la solal li nga am te dem liggéey ma ne kon kan idrak wati sa kur fi fi ñu toll nii da ngay gis doo doomi patron di daaw naan doomi patron dafa ragal ragalu de sëñ bi sëñ bi ci loo ne cashier ni ko tóobi de ah wala waaw kay katas maanaam doomu patron ñu ñu ñu ne dafa ragal ragalu de doomu patron dafa tamul coono boo ko dóoree day daw balaa doole bi nag moom tàmm na coono moom. ba ñu xale. patron bi doomu patron bi régalut. daa tàmm coono. ak yow nag da ngay baatale yow tàmm coono. xëy na bëkkante dóor rek. ñaan yow ak a daw da ngaa ñeme. ñeme woo de ñeme woo. waaw léegi léegi léegi taxayul taxayul taxayul taxayul taxayul imagination sunu bii bu ñaaw bii bii bu ñaaw bii boo ko dee taxayul lo looy taxayul maanaam li la woon lépp ñaaw traite bi lépp ñaaw seen kër lépp ñaaw léegi yow booy booy booy taxayul ban image nga am booy mën a sensé ka defaraat image yi nga am yëpp baaxul fi fi ñu toll bokk na ci dund dund dund waxal ba gane laysa bil xubsi faqat yaxyal insaan al jamaal daa bokk ci dund bi sun mag ñeente kaw ga dañoo fonkoon ak col fonkoon couleur couleur bi ñuy sol diggum ñoom ji yéeri di naan kat nangam moo xew waaye ndax yow moo xew yow yow jëpp la mag ñeente di daa xool lu diggum ñoom taar taar da ngay togg añ tey jum nga léegi da ngaa rëcc na ba xam sa ëpp la nga dem solo solo woon nga xam ne boo dikkee nit ñi yow la ñuy xool ba duñ gisati duñ duñ yëgati xorom sax naka noonu mën naa ceeb bi neex noonu ba dëkk ne mooñ ñu joxe añ bi jëj ci bool bi nga xam ne yow da da nga ne bu kenn lekk gars yi baal na ko na na nga ko joxe rek kon al al jamaal ci lu ñu lekk la jamaal dañ koy lekk jamaal ci ruu gi daf da koo mar ruu gi daa mar taar koo mar taar fi toll nii jigéen ñi seetlu fi jigéen ñi boo gënoon ci mbedd mi seen génn jigéen muy dox bala ngaa xam ne jigéen la da koo jigéen. li ma li ma li ma lu am solo la.
waaw.
jigéen moyen la góor prise waaw.
bu ñëpp dee prise courant du am tey. naa du am tey.
xam ngeen lu lu lu tax góor ñi tekk soxna yu yu bayee te yëpp ay prise lañ Entreprise la.
ay prise lañ góor góor gi xam ne ñëpp prise lañ mu dem tekk tekk waat kooku di la doon prise soxna yu bari yi jigéen moo doon jigéen ma maanaam bawal da da dañoo réer doon jigéen jonge jonge baat bi mooy lan jigéene jonge mooy jigéene nar nar yéen fekk ci ñoom dañoo jonge dañoo jigéene bool bool dañoo góore ba am solo gars yi am solo wala fii oh
Daal di dara dara.
oui ma ngir gars yi ëpp yi ëpp yi tey sunu Tuubaa yi gox bi jàng maraaxib jàng xasida dem ci daayira yi kenn du xalaat maa Tuubaa dem ci armée Tuubaa bi ëbbi bi ëbbi du du bi la xalaat maanaam bi ëbbi du du bi la xalaat maanaam da da dañ lay saxnu ba duy la ba nga fees dell ci ay ay xawaati xel dafa war a liibu dafa war a liibu moom mën a xalaat noonu moom xasida yëg nangam yi day rëb yi sëñ bi nangam da ngay mujj du la xar yow doo amati de kon kon fan yi dafa dafa am xale xale bu ñëw ñu ñëw sama kër guddi ma xool ko yaakaar naa am magat la ma jóg xale bi ñëw xaw ma ko ma naa ma xaar naa nga fàtte muy wax ma ne ko ma ne ko yow bi ngay ñëw nekk na am magat nga yow amagoo soxna yow mel na màggat amoo yow yoroo dara ba noppi mel na màggat luy loolu luy loolu da ngaa war a melo melokaanu gone mën a def yëfi gone mën a liggéey yi ku la seen mën laa dimbale magee magee gi bawal bawal moom ni jigéen ñi góoree ne la góor ñu ñoom it màggatay kon léegi wa taxallum taxallum léegi bawal boo fa nekkee ni mu mel boo yéexee doo am loo jàng ndax lépp yem li li nga gis tey moom moom ngay gis suba moo tax ku dëkk bawal war ngay dem léegi Ndakaaru demal Ndakaaru nga am fa ñetti fan ay bés maanaam incha allah bu guddi jotee fa fa nga dal bu ñu la joxee tey ab reer bu subaa dañ lay jox tuuti omelette bu ndaw wala kaasub somme bi yow mi dëkkoon Touba yow boo ko lekkee guddi yëpp da nga sonn da ngay daal di xëy ñibbi si de lo- loolu nag da ngay xamal ko ne yow kon nag la nga doon nekk du dëgg de Ndakaaru lépp dañ dañ koy fay soo bëggee dañ koy wax képp sax da ngay fay amul lépp da ngay fay maa ñàq ku liggéeyu doo am doo dund ko Ndakaaru baax na de baax baax na ci bool bool demul danañ bool bool yii dem dem Ndakaaru wala rek vacance fa ah baax na de waaye toog fii rek maanaam muy neex rek lépp doy ah su tubaab xéwal gi nag duñu daaw da da da da da ngay Ndakaaru ba xam ni xel la Ndakaaru nag toogul wala ibtidaar nga ci ci ci bari feem feem léegi ñaan jigéen dafa war a ba- bari bari feem feem mooy waxtu wu nekk sa jëkkër nga wan ko noo xam ne da da maanaam dana la jàppe ku bees day da ngay mel ne day absurde loolu mooy bari feem di di ibtidaar dundin wi palaas yi palaas sa borom kër sa borom kër lan la bëgg maanaam fexeel li mu bëgg nga nga nga bari ci ay fem ba toppatoo ca leneen loo xam ne bokkut ak la mu xamoon ba nag ci dëppoo moom ay fem bari fem kon adduna bi dama laaj waaw kooku lu maa yees te fexe woo lépp lu lu lu muy yëg minta asuraatin wujjaan yi lépp looy yëg lu lay ñaar lu la naqari te mën a sa sa koy jàngat ba xam nan la wa infiaaliya jékki-jékki gaaw a mer gaaw a bég lan la lan ndax ci deret ji la ndax bii ba la wala yooyu kal ihsaas yëg la lu ko waral bi alam gaaw a yëg lu metti te mënoo ko muñ dama nekk ci kër ga seen benn tali bi boo xam ne dañ dañ ma ko jox booba tuut tuuti la nii su su may julli mu ñëw de mu ñëw tëdd ci ci sama ci ci pol bi léegi nag bu buy tëdd buy tëdd coñcaay li la la la muy teg sa sa sa sa soxnaa ma na naa ko naa ko waaye ci coñcaay métti na ma ko déedéet fi mu toll bu ma koy jël suba teg day métti suba mu ñëw fa teg ko ma ne ko ma ne ma ne ko kii daa gisul ndeyam daa bëgg a uuf loolu muñ la muñ muñ la muñ la de métti métti na waaye dama koo muñ ba fàtte ko. am na jigéen ñoo xam ne bu leen seen doom tey seen daa seen seen coono rek bu ma dugg weeru la def may gaañ kooku daaw mënta muñ bi diiq coor bi diiq daa waxat jigéen ñu bari boo dafa koy jiw ël mënuñu kaayoo mën na nekk day bëgg kii kii noonu nga sëy dafa dafa nekk li leen daa demoon ci activiste bi xaw ma ne xaw ma ko ñu ñu ñu siyaare seen benn benn kilifa ci moom ñaan nañu dem sëñ bi daal di ne eh daal di woo soxna si diw makke kaay indil sa sa sa sa càmmiñ yi tàngal leen leen café ndaw si dikk gënoo ma gënoo ma gënoo ma yow tàngal am tàngal café sëy dafa nee nañ dañoo rus ba dañoo la ci yow yow say mag lañ bëgg ñu sa sa sa jëkkër kaay tàngalal say mag kafe yaay kat yaay kat yaay kat ba mu ne ko waaye rëy action bi jeex gaaw a xat xaw leen étudiant am na ñoo xam ne dañoo féex loo leen wax am na si jigéen ñi waaye bëri wuñ boo wal yaay ma gis jigéen bu di ko am baraan am ñoo xam albaraan asli jigéen yoo xam ne day féex loo ko wax du ko naqari da da da day naqare jot loolu mooy jigéen jigéen du ko mel bu suyee sax fa wa kullu maa yamiru ilayhi aw yurju lépp lu mu jéng jëm ca mbaa mu nam mu ko rek te mën a suuf loolu lay jàngal ma xam lan la aw yër xaf du ma xemmeen aw yër kuru loolu la may daw ko kenn su ko yaa ko ko de
آه، ما معنى الهرب صار الهرب مين اللي بيقول لك؟ آه، الهرب الهرب آه،
ak ak xërëm bi.
ba ndaw ndaw ndaw.
ndaw man ma ne léegi waa ñu seen ak bu ndaw.
waaw daal ci ndaw.